dal leen ak jàmm wàllu mbas mi tàggat yaram ak yeneen i xibaar moo gën a fës ci yéen kaay génn tey jii nii Sud Quotidien ñoom dañoo dellu si waat ci yëngu-yëngu yi amoon démb ci université Alioune Diop Bamba Mbaye waaye tamit ci université Gaston Berger bi nekk fële ca Ndar ñoom dañoo wàccoon ci mbedd mi ngir rek bëgg nag meilleure condition d'étude étudiants yooyu sax ñoom dañoo galantal bi waaye tamit daal di fay taal ay pneu bëgg ay ndox ci campus social bi waaye tamit ñu àggale liggéey bi ci amphithéâtre defar hangar ci restaurant yi waaye tamit ay mini forage suñu naataangoo yi tamit di fas yéene li ni mel lañ nemee kon ci université Gaston Berger ba la Ndar coordination des étudiants yi nag dañoo xàppati benn fan boo xam ne kat dañ ko jàng li ko waral nag mooy décision bi nga xam ne kilifa jël nañ ko ngir rek ñu wéyal njàng mi ba fukki fan ak ñeent ci weeru bii ñu nekk nii loolu nag amul benn garantie boo xam ne ko ci wàllu paj gi ci waxtu woo xam ne kat mbas mi dafa lëmbee fii ci biir Sénégal étudiants yi seen bëgg-bëgg leen rek la ñu jël seen ay matuwaay na mu a yembee comme nañ ko defee woon rek ci vague bu njëkk bi ci wàllu mbas mi maanaam jox étudiants yi ay waaye tamit jox leen ay masque Sud Quotidien des ak ñun ba tey ci li nga xam ne kat moo jëm ci wàllu courbe bi nga xam ne kat fi mu toll muy gën a wàññeeku waaye cas grave yi gën di yokk ba léegi loolu nag am na loo xam ne moo ko waral bokk na ci nag yéex gi ñu yéex ci wàllu évacuation yi loolu nag Moussa Sam Daaf bu hôpital Dalal Jàmm moo ko xamle yéeni kayi di la sole di fësal ne Macky Sall kat joxe na ab ndigal maanaam ñu indiwaat rek point du jour nañ koy defee bés bu nekk bu 10 heures jotee li ni mel dañ ko def ngir rek xeex ak fausse information yi maanaam xibaar yi nga xam ne kat nekkuñu dëgg bi nga xam ne dafay gën di fës ci wàllu mbas mi moo tax sax ñu wax RTS mu jël ay matuwaayam ba daal di yëwéen le soleil tamit dafa def si waat ci gi di laaj lan lañ ci war a comprendre ñi nga xam ne kat am nañ mbas mi ba daal di wér na mën nañu yéex seen wàllu ñàkk ndaxte kat am nañ immunité boo xam ne kat dafay yemoog ñi nga xam ne kat ñoo ñàkk woon te nag amaguñ wàllu mbas moomu noonu te jël sa ñaari dose ba pare loolu nag mooy kàddu yi nga xam ne Mouhamadou Sow moo ko rotal nekk nag jàngalekat di gëstukat ci institut du médicament ci université Cheikh Anta Diop bi nekk foofu ci Ndakaaru l'observateur dafa def taxaw seetlu ci loo xam ne kat dafay dox mu toll nii maanaam njaayum cercueil ci contexte boo xam ne kat mbas mi dafa lënd fii ci biir Sénégal nee na kat su fekkee lépp loo xam ne dafa lompoñ ci wàllu koom menuisier yi nag ñoom bokkuñu ci nga xam ne kat ñu yëngu ci wàllu cercueil inscription wàllu primo votant yi nag ba léegi xamal ne ñii di waa FRAPP nag bëgg nañ bind bataaxal jox ko Cour suprême ba tey ci wàllu woowu yéen kat di la Soleil di bind ne fi mu toll nii kat ñëpp soxla certificat de résidence bi nga xam ne kat ñu bëri koy uti fi toll nii loolu nag naka lañ koy joxe waaye naka lañ koy def boo am ko tontu bi mu ngi ci yéenekaay bi di quotidien national le soleil ba tey ci wàllu woowu ndaw yi nekk ci wàllu LD bu nag ñaawlu décision bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal jël na ko l'observateur dafa dellusiwaat ci mbirum Serigne Tar Yaaxi loolu kat fi mu toll nii moo lëmbee Sénégal bu baax a baax moo gën a fës ci yeneen bi am na ci ñoo xam ne kat ñu ngi ci nettali jafe-jafe yi ñu ci jànkoonteel ñooñu kat dañuy faral di rey waaye tamit dañuy faral di sàkku teewul di fay wax seen ay jàmbat ñii dañ koy def ngir am alal ñii dañ koy def ngir i mbir ca mujjantal lañ ciy gis moom mooy ay jooy ay rongañ waaye tamit deret ju ci faral di tuuru ci wàllu tàggat yaram Messi ak FC Barcelone jeex na loolu yeneen kaay bi moo ko fësal ci xëtt mu njëkk su neataango di ñu ne tas na ci diggante Messi ak tamit FC Barcelone moom monsieur moom sax nekk meilleur buteur club bi nekk tamit capitaine boo xam ne am na fanweeri trophée ak juróom waaye tamit ak record yu bëri yoo xam ne baatal na ko nag daanaka mu doon incarné Barcelone loolu ci toll ci nekk ñaar fukki at nii waaye nag attaquant bu ndaw boobu nga xam ne am juróom benn ballon d'or nag moom daanaka nag fi mu toll nii Barcelone mënu ko woon téye ndaxte kat ci wàllu koppar moo tax li ni mel yéen a kaab record moo ko ci yokku assemblée générale élective bu fédération sénégalaise bu football maître Augustin mi nga xam ne dafa nekk candidat pour un quatrième mandat moom dafa mel ni kat gis na yoon wax mu ci jaar dinañ gagné CAN bi ci atum 2022 fële ca Cameroun nii ku nekk lañ ko war a dugal sa loxo su ko defee mu daal di mën a yëwén kii di candidat wu consensus bi nag démb def na ab conférence de presse ngir rek wax lan mooy bilan waaye tamit lan moo tax mu bëgg a sampandëndam ngir jiite fédération sénégalaise bu football mu yëkkati ay kàddu ci yéene kaay bi la Soleil nee na kat football bi moom tànn na camp Madiou Touré mi nga xam ne moom lay xëccoon moom bàyyi na xel bu baax a baax lu jëm ci wàllu programme nag aspect social joueurs yi nee na kat moom bu ñu ko falee dina jox joueurs yi seen gëdd du fàtte tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk anciens internationaux yi ci waxtaan moo xam ne seeq na ko suñu naataangoo yi di sunu lamb Bira Sène président bu CNG dil siwàl na ci camp campagne de vaccination bu ñu doon jaglelee ñu yëngu ci wàllu làmb waaye tamit disposition yi xam ne jël nañ ko ngir rek fexe ba combat yi ñu dàqoon nag ñu amal ko ci na mu gën a jàmpee mbokk yi jaa ngeen ba beneen yoon allahu rabbi bonjour à Le Covid-19, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce vendredi. Sud Quotidien s'intéresse au remous à l'université Alioune Diop de Bambey et à l'UGB. Surchauffe dans le supérieur, c'est le titre du journal. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey sont descendus dans la rue hier pour exiger de meilleures conditions d'études. Ces étudiants ont barré la route et ont incendié des pneus pour de l'eau dans leur cours hier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La coordination des étudiants a décrété 24 heures de cessation de toute activité pédagogique renouvelable. Cela fait suite à la décision prise par les autorités de continuer les enseignements jusqu'au août prochain sans assurer la sécurité sanitaire de l'étudiant. Le souhait de la coordination, c'est que soit remis en place le dispositif sanitaire installé lors de la première vague de Covid-19 dans les deux et une distribution permanente de masques et de gel de fléchir avec des cas enregistrés par jour durant cette semaine. La courbe a chuté de 30 à 25 seulement les cas graves continuent de grimper. et deviennent inquiétants. Un paradoxe qui peut s'expliquer selon Moussa Samdaf, selon Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital d'Al-Jam et d'autres professionnels par les retards pendant les évacuations. Nos confrères du quotidien national Le Soleil révèlent que le chef de l'État Macky a décidé hier du retour du point quotidien de la situation. Dès ce vendredi, l'objectif est de lutter contre les mauvaises informations qui prennent de l'ampleur durant cette troisième vague. La RTS mettra

peuvent retarder leur vaccination car elles ont une immunité équivalente à celle des personnes non infectées qui ont reçu leurs deux doses. Ces éclaircissements ont été apportés par l'enseignant-chercheur à l'Institut des médicaments de l'Université Cheikh Anta de Dakar, Dr Mohamedou Sow. Il soutient que les personnes vaccinées ne sont pas à l'abri d'une infection. Nos confrères de l'Observateur s'arrêtent sur le business lucratif des cercueils toutes les activités à l'exception de celle de la menuiserie. Les confectionneurs de cercueils se frottent les mains. Inscription des primo-votants via la carte d'identité CEDEAO, nos confrères du Sud Quotidien révèlent que le mouvement FRAPP ne compte pas rester en rade dans l'épineuse de l'inscription des primo-votants sur les listes électorales suite à l'ouverture de la révision exceptionnelle des listes électorales, relevant que la conditionnalité de cette inscription confrères du quotidien national Le Soleil révèle que le certificat de résidence fait l'objet d'une grande convoitise pour les citoyens qui souhaitent changer d'adresse électorale pendant cette période de révision des listes électorales. Quelles sont les conditions pour obtenir ce précieux sésame? La réponse d'un officier d'état civil et des spécialistes des questions électorales après l'alerte du gouverneur contre toute délivrance discriminatoire Dans le même journal, les jeunes de la LD Debout dénoncent la décision du gouvernement rendant obligatoire la présentation de la pièce d'identité pour s'inscrire sur les listes électorales. Nos confrères du quotidien L'Observateur s'intéressent au fétichisme. Le grand ravage, c'est le titre du journal. Les victimes des charlatans racontent leur misère. Ils violent, ils tuent et appauvrissent souvent ceux qui viennent les consulter. Pourtant, les Sénégalais n'arrêtent jamais de frapper à la porte des charlatans, ces faiseurs de miracles, certains pour devenir très riches, d'autres pour se débarrasser d'un prétendu mauvais sort. à l'arrivée rien que des pleurs, des larmes et du sang. Un sport départ du Barcelone après ans, la bombe Messi, écrivent nos confrères du quotidien sportif Stade qui précise que le divorce est retentissant. Lionel Messi et l'FC Barcelone ont mis fin à leur histoire d'amour en officialisant le départ de l'Argentin désormais libre à 34 ans de trouver un nouveau club. Meilleur buteur de l'histoire du club, capitaine aux 35 trophées et était devenu presque trop grand

être des lions redoutables. Dans le quotidien national Le Soleil, M. Augustin Senghor révèle que le football sénégalais a choisi son camp. Nos confrères du quotidien sportif Stade révèlent que derrière le volet des infrastructures sportives et du football de base, Madi Touré s'est beaucoup appesanti sur l'aspect social de son programme. Partout où il est allé dans sa tournée électorale, le président de Génération Foot a relevé la nécessité de revaloriser le statut des joueurs et des anciens internationaux. En lutte, dans une interview accordée à nos confrères de Sunu Lamb, le président du CNG Bira évoque la campagne de vaccination des acteurs de la lutte et les dispositions pratiques envisagées pour que les combats reportés puissent se tenir dans les brefs délais. Merci, c'était tout. À vos journées et bonne lecture à tous.